sant yalla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di remercier euh, population Dieuppeul Derklé yëpp muy ñi and ak ñun ak ñu andul ak ñun parce que gis nañ euh, ci dëkk bi amna ay gox yu xawa tang mais ñun vraiment gisuñu fi dara lo xamné euh djégena ay violence maintenant journée bi jeexagul euh, nous avons demandé comme nous avons dit, à 6 h du matin nous avons coordonné Machallah, le euh, centre euh, Ibrahim Seck Kassor, ça se passe bien mon tout tuuti retard rek mais c'est bon euh, Ibrahim Koyte c'est bon Fi aussi nga xam dit que nga xam ne mooy centre bi est a mag vraiment avons fii benn jafe-jafe ñu ñaan nag continuer et puis qui euh, jël ndam li jël ndam li euh, ñi nga xamné euh, yalla ñu am ndam ñu accepté et puis ñu commencé nak liggéey parce que li ëpp solo moy li population yi bëgg ñu tambalé liggéey bi nak euh li fi nekkoon parce que gis ngeen école bi ni mu mel ñi fi jangé woon en 1960 bu ñu ñëwé duñu ñu parce que lepp ben donc ñu am yéene nak am pas-pas euh, pour euh, defaraat euh, gox bi ànd ko ak ñëpp incha allah.